Yeah. ndey faam ndey faam ah yow sama ñëw ah sama sama sama mama aram doomu kat ndey jàllo ak sa papa lu tudd El Hadj Ndiaye waaw yéen ban saa ngeen di tari voilà ana beneen micro bi teewul ma ko maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu auzu billahi

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدخان amal yatima fala takuhar wa ammas saila fala tanggar wa amma binah mati rabbika fakhaddis sadaqallahul azim Muhammad, Muhammad, su ko defee nga rafet. Bouchra Faye. Bouchra dégg tur bi neex na de alamu Bouchra. su ñëw ñu def ci Aysatu dara. Aysatu dara. après booy bu muy wooyee mooy Mouhamed Rasoul Diagne doomu Diagne. lii laa Xuraysi. Mamadou Amin. Mamadou Amin Darame. Amin Darame ku seet. Kumba Maane. Kumba Maane. ak nuyoo après nga tare lii laa Xuraysi ñaar yëpp. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. الشجرة ذات والسيف فيعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنوا من خوف صدق الله العظيم Kali boy yang sini ay mo lang ko. Tawag. Kami ni Suar. ndax papaam dañuy wasifandoo fii ci président ci doomu jaay la yow moom xam naa ni bu ñu paree dañu réglé suñu problème ak yow. aleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatulah wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهي لها يومئذ يشدون الناس أشتاتا ليرف أعمالهم صدق الله العظيم صدق الله العظيم تأكد محمد رسول الله moom ngay indi suuf ceeb rek la mën tàcc leen Mouhamed Sall. ah Mouhamed waaw. bu Mouhamed Sall kii la gis Pa Modou Sall waaye benn la rek. mu bëggoon rek bu xale yi pare mu mën a yéwee ko dem foofu ñëwaat incha allah. loolu tax ñu bi wala moo tax nangu ñu wax dee leen fay nuyoo fay nuyoo farata la de bu leen nuyoo fay leen ko ah lu baax de dee fay dégg su leen nit ki nuyoo leen tey fay nuyoo waatal bu baax de assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa taala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 قبور بحصرت علمت نفس ما خدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاركك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين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 qul wallaahu ahad aywa nuyoo woon ba pare nga ñëw ci qul wallaahu ahad. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Yang yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu lazim. Sadaqallahu lazim. Tati leen Maria Bisa. Tati leen. Bool bi ci digg bi. Moom. Bool bi ci digg bi. Ana Papa Fall. Bool bu alhamdulilah kayfa. ati nuyoo nga ñëw ci alhamdulilah kayfa. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh. auzu billahi. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh.

قابل فيه ألم ير القيدهم في تضليل وأرسل عليهم قيرا أبابيل ترميهم بجارة من سجيل فجعلهم كاس معقول صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبركاته tàccu leen ko moo am kenn bay am am na kurus. ndeysaan yow moom xaw ma sa papa waaye sa yaay moom xamul dara. ok. Mohamed Samba Mohamed Mohamed Samba. suñ ko mënee ñun ñëpp nañ noppee déglu ko incha allah bu daan ko teel di jëlaat kon moo ñu dund suñu borom ñi wàññi coow leen bu baax. Mohamed. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يود على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم asalaamaaleykum jàppal ni àdduna ñu lay seetaan kon ñuy jekkal toogaay yi tuuti ak di xaw parce que tamit euh, buñ la boo boo toogee toogaay bu jekkul wala ngay def ay manière ñu filmer la sa mbokk bu nekk Europe wala États-Unis di seetaan naa xoolal jiw moo motte yaa ko teg sa bopp kon affaire bi ni rek ci tànt bi la yem adduna bi yëpp ñu ngi ah. allah. Aïda Cissé Ba. Ami Cissé. Aïda Cissé. Mariam Ba Aïda Cissé. Mariam Ba ana ñu. war leen ba. parce que ñoom Adama Cissé. daa mel ni ay soxna ay soxna kii la de soxna fàndi la de yooyu ay kan am yow mën nga taxaw rek ami Cissé yow nag yaa ma rek yow Aïda Cissé yéen ban saar ngeen di jàng hmm, léegi aywa yéen nuyu leen bu bëri kan mooy seen seen seen papa sa papa borom papa nga def donc moom war nga amul alxuraan ah? yow ku sa papa Amadou Ba waaw ah, yow Adama Cissé waaw ah, góorgóorlu leen acca nuyoo leen bokk jullit yi après ngeen ñëw ci Al Taraqiyah Salam. dina toog seen place aywa nga laxal léegi Jangan def jàng alxuraan jàng alxuraan nag moo gën laxal laxal wóorul de ay Sarah? Amadou ban saar ngay tere ah waaw waxal ci ah naataynaakal an sa papa miinu sa papa miinu ñëw Amadou yaa ñëw man sa papa ñëw na de ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن كوثرا فسل لربك ولا إن شانئك هو لبطر صدق الله العظيم صدق الله العظيم أمريكا أيوة, أيوة،, أيوة. أوكي Maget Jeng Gaya dari now. I will be yow nag am ah, bii la yow benn la benn ah li nga ya yaa li nga ñu demee gerte mu ne benn gaaw ah dëgg gaaw wala turandoo moo dëgg gaaw hmm, ah, kon loolu tari. Hmm, nuyoo leen ba pare. Hamidou Ba yow liñ ñu liñ la war wax soo ñu ko waxee ah ñu lan lañ lay wax ah asalaamaaleykum ngay wax après nit ñi wax la waaleykum salaam. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Ibrahima tëb ko kon <laughs> maam Biram maam Biram Diop ak maam Biram ak maam Bekkaay Mbaye maam Bekkaay Tarawore maam Biram Diop Daaru Salaam ok Daaru Salaam Bambara wala Daaru Salaam rek Allah yemina shaytan yow nag yaay kan. maman Niang. fu ngeen dëkk. Daaru Salaam. kon baax na ban saar ngeen di tere. naaw naaw naaw. ayca nuyoo leen ba pare. assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa Sarni. Kamu Natürlich. rugaleen leen ak ay ak ay aywa an Souleymane Moussa Diaw. Ousmane Pa Moussa Diaw di war a ñu ngi fi ana maman Faly non loolu yàgg sax am ana la Fall Fallu nan Fallu Caam kuy sa papa kuy sa yaay yaa foo dëkk xamoo foo dëkk yow nag yaay kan ah ah déedéet Fodé. doo wax si rajo bi. Fodé. garab ya. kuy sa papa. Bou Fall. kuy sa yaay. dañ si liggéey. kuy sa mel ni moom nag dafa taw daara ji dégg moo tax ko jàng ji booy mais dafa taw daara ji yow nag toppi ba wàcc kaamil dégg ah. ayca ban saa ngay tere. ayca nuyoo woon ba pare.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 كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون إما اليكيم لترهن الجحيم العظيم تاكل الكل صدق الله العظيم خديجة جاك yow mi sa papa sax sa yaay sa papa def mooy borom jàkka ji ah xam nga loolu baa bëgg fi toog ba wàcc alquran bul bàyyi de bul bàyyi de xam naa la nag dégg sama aas aas bi ngoo bi ci mujjee conférence wàcc na alquran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

Abbas Fall Abbas Niang loolu la ñëwal kaay kan kan kan Fallou Ba loolu yaa ngi dese wala Ibrahima doomu kan El Hadj ak kan Ndeye Soose yow nag jàppal tudd laa wax. teel la ak kan kuy sa papa. Mara. Mara. kuy sa yaay. Mara. ban saa ngeen di tari. ah. aywa nuyoo leen. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu.

kasani akau wal abutar sadahallahul azim tàccu leen leen sadahallahul azim ya ya tiga ya kan apa dua bukan Aku Enggak. Ya. noo tudd noo tudd waaw yéen. Eh. faar yi doy na dox leen tuur yi rek bas affaire <laughs> yi tari. aywa nuyoo leen ba pare. asalaamaaleykum wa rahmatulah. wa rahmatulahi taala. Sarah. président Yoro Fall moo la ko jox parce que dafa wax lu am solo nee na maa ngi nuyu sama mbokk jullit yi mu mbokk taalibe cheikh yi kon moom day wane ni taalibe seex la wa eh. Busra Jaynaba Tijaani Fay papa mu ngi ni suñu wóllëre la ñom ñi ngi dëkk biir mo waaye wax dëgg yàlla sax àjjuma ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu

ليلة القدر خير من ألف تنزل الملائكة وروبيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله الشيطان الرجيم sant yow da nga si ñeñeen nga moom ah si ñoom sa sa yaay sa dafa yow est-ce que seen kër boo boo indi nga suur ah boo Kameraman man ne عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض ذات السديد إنه قوم الفصل وما هو بالنزل إنه يكيد دون نكيدا وأكيد فانظر للكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم तबारकल्ला आयो Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsi waduhaha. والهمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يساها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها والنفس وما سواها فألهمها فجولها قد أفلى من زكاها وقد خاب من دساها كذب السمور بتقواها إذ انبعث أسخاها فهرم رسول الله ناهد الله فسقياها فكذبوا فأكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها صدق الله العظيم صدق الله العظيم tàccu leen bi bokkul ci séeréer yi ngay dama bàyyi sama waay wuyu kaay القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وهو فيها بإذن ربهم من كل نفس سلام الغياء التامة ليلة القدر صدق الله العظيم

your yàlla yàlla barkeel la bu baax yàlla yàlla guddal sa fan. Eh, léegi ba mokk. bu la bés gisee si lay fekkee. bu la bés gisee si lay fekkee. góor bu ngeen bëgg a dégg mënoo jël mburoog omelette ba pare yéeg ba ci kaw taabal ji di ko sàqal ba pare te doo fi tari lu leer macha allah <laughs> Ayo, nday awa Diouf ayo ah <laughs> aywa nday awa boog saar ngay tari aca nuyoo wal gaaw

sadaqallaahu l-aziim tàccu leen man day awa bu baax a baax a baax foofu la ñuy taxaw et demi la ñu wan de et demi waaw mën na Ney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 أنفسكم أو أن أتقتلون رجلا أن آه، يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن آه، يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعلكم يسبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي على بتر منين من راى منكم منكرا كيف وجسين لبن قال فليغيرهم بيده نلقتي صلاحه فإن يس فإن لم يستطيع وخمن التسلخ فبلساني غتيك السلام فإن لم يستطيع وخمن التسلام فبقلبي بوكو غتيك السخل ونقرك السخل فذلك جلد أضعف الإيمان في لوريا تبارك الله سوتي كوتي ريو جوليت ياب رواتينا سنغال rawatina yaraax yàlla defal ñu tawféex ak taysiir defal ñu jàmm ci suñu réew defal ñu jaamu yàlla gu ñu nangu ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jël ay kàddu yoo xam ne nii nag euh, mënoon na ñàkk parce que li tax mu mën a ñàkk mooy oustaz Mbay Coro bu fekkee ne mi ngi toog nii jàkkaarloo ak euh, oustaz Hamme euh, xale yi ñëw di Jangan Al Quran nga xamanteni ni mom lañ doon di tari alxuraan jo nga xamni mom lañ doon jangal bon mënon nañu bayyi rek ñom bis bi taru na ba paré te melna ni wara mel waye nak euh, dafa jek mu jaadu sunu agge fi wa dekk bi yeb tew njabot gi yeb tew ñu am lii danañ sante gërëm ñi nga xamanteni ni gannaaw yalla ñom ñoko sabab ci turu nag waa dëkk bi yëpp kilifa yëpp ngi fi nii teew macha allahu rabbi euh, kàddu yi nag kàddu lay sant la ak ngërëm ndax nit bu fekkee ni dafa nekk ci lu baax dañ koy dolli nin koy dollee mooy na ko jër jëf ci li nga nekk baax na ginnaaw bi nga xamante ne nii nag sant nañ waa dëkk bi yëpp magi dëkk bi ak ñi ko dëkkee góor ak jigéen mag ak ndaw suñu kilifa yëpp ñu ngi nii teew ak suñuy mbokk ak suñuy xarit di leen wax képp ku fi indi aajo yal na ko yàlla faj bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax lii lu am solo la ci dëkk te lu war di am la ci dëkk waaye ñi ko sabab gannaaw yàlla nag muy imam Omar Diallo bi nga xamante ne nii jërëjëf imam ak ñi nga àndal ñépp ci liggéey bi muy góor ñi muy jigéen ñi di mag di ndaw ndax kat. biñ la defee imaam ci jàkka ji nga yore ko mënoon nga yem ci jiite kese di jàngal ñi nga mën a jàngal mais dangaa ngaa jël tout tànk yi xale yu ndaw yi ut jàngalekat teg ko fi muy jàngale muy kan muy oustaz Xambe Ba oustaz Xambe yow sunu sëriñ nga yow yaa ñu gën fuuf yow yaa ala ala alayra askuka di jaay Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yàlla ada macam Thank you. sant la suñuy waajur ndax nit lu mu am ci àddina ci nu baax war na sant ay waajuram kon ñu ngi sant suñuy waajur sant suñuy bokk sant suñuy dëkkandoo tabaarakallahu bi dafa seet xol 네, 잘. 방금 저희 해결해, 해결해. baaw nga koy tuur li muy wax li tooyal xolam du naqar waaye ba neex la kon ci dégg-dégg rek mooy teraanga yi nga xam waa dëkk bi def nañ ko mu jëm ci moom aku oustaz ah, te defal ko ko mooy defal ko waa dëkk bi defal ko ko mooy defal ko kilifa yi di toog yëpp loolu moo loolu la doon ngërëm googu rek la doon delloo ndax alquran dafa ni hal jazaa'ul ihsaan illa rek moo koy fay kon kii di wax cousin la ci imam waaw moom euh, moo bëgg a wax ñu jox kàddu bi rek incha allah wax dëgg yàlla naru woon jël kàddu mais yenn saay mbir dina am léeg day doon wareef si yow nga jël kàddu parce kàddu bi mënul weesuwul lu dul sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare di leen gërëm ba pare di leen sant parce que kii sunu doomu bàjjan la donc bu yàlla defee mu ñëw nekk fii yaraax ngeen mel ni ngeen mel ak moom nii bokk ak moom ni ngeen bokk ak moom nii mënuñu lu dul sant yàlla parce que ñun ay mbokkam nu mais yéen a ñu ko gën a jege tey bu dara xewee balaa ay mbokkam du ñëw yéen yéen ay jëkk teew te yéen ay jëkk taxaw donc loolu ñu ngi leen ci gërëm di leen sant xolam nag dafa fees parce que xolam lu tax mu fees parce que bu la yàlla boo lekk ay nit ñu baax ñu yéene la lu ëpp li ñu yéene seen bopp sa xol mënul def lu dul tooy kon nag moom ñu ngi koy sant di ko gërëm lii nag ñu def lii am lii yëpp nag li ko waral moo la alxuraan yàlla sunu bopp moo ko barkeel teg si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu jël si di si taafaan donc nag li nga xam ni moom la ko yàlla defal defal ko oustaz bii toog yàlla na leen yàlla yàggal ñu yàgg taxawu lu mel nii te yéen ñëpp ngeen fekk ko mais daal li ma leen di mën a xamal mooy ñun ñi ay mbokkam kontaan nañu si yéen kontaan nañu si moom parce que lii mbégte la tiitar la kon nag yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla guddal seen fan yàlla na leen yàlla barkeel yàlla na yàlla barkeel seen jaboot te ngeen yàgg taxaw lu mel nii si barke seen naa Muhammad li ma jël kàddu rek mooy li mu dem ba mënatul moo tax ma ne naa si sànni tuuti di leen gërëm di leen sant wasalaam. ndax ajuma bi weesu dégg ngeen imaam moo def bayaan moo def waxtaan waaye dégg nga kàddu yu kàddu yu dëgër yi mu wax kàddu yàllay kese pour won la ne moom yéene ko fi teg. xam na ne génu leen na Seydina Aboubacar waxoon rek yéen a ma fi teg waaye xam naa ne gënu ma leen kon nag bu fekkee tegu naa si yoon na ngeen ma dimbale car ma dimbale ma ndax dimbale ko mooy dimbale diine waaye su fekkee ne dafa juum nañ ko oo bam ñëw secrètement dëgg kenn du ko kenn du ko waxe si mbedd dañ koy oo si néeg wax ak moom parce que kilifa la donte am nañu ko fi mën a jur sax waaye kilifa la kilifa du tuuti kilifa kenn du ko xaaj ji si mbedd déedéet waaye tey jii conférence bi ak li nga xam ne moom la waa dëkk bi yëpp def décoré ko wax dëgg yàlla jot waa dëkk bi yëpp def ko décoré ko won nañ nañ ne xol yépp ànd nañ nekk benn mbooleem taq-taq wala safaan yu nekkoon ci diggante bi yàlla fóot na yépp bés ni ki tey yàlla nañ yàlla teg ci yoonu siraatal mustaqim yàlla na yàggal taxawaay bi bu baax te gën koo barkeel te dëkk bi lu mu tuuti tuuti wallahi rëy na lool ci yàlla subhanahu wa taala ndax seen doom yi fi jàng kon yàlla na yàlla barkeel xale yépp fi mos a jàng yàlla na yàlla barkeel leen képp ko tegu ci yoonu siraatal mustaqim yàlla yal na yàlla saxal loola loolu rek lañ soxla loolu rek lañ soxla ci suñu réew mi ci suñu dëkk bi loolu lañ soxla muy muy lislaam te taxawaayu diine bi taxawaayu lislaam bi incha allah ñu gën see góor góorlu bu baax li eh, nu mu tuddati Mohamed Mohamed ñang doon wax léegi rawatina suñu mbokk jigéen yi suñu yaay yi suñu eh, bàjjen yi suñu yumpaañ yi waaye ñu gën a góorluwaat jéem a xam seen diine. Fi école bin ko fi si kaw si jàkka ji oustaz demul fen mu ngi fi ku bugg jang jàng ñëwal jang waxuma ko ku bugg jang jàng sax waaye ku buggut a yo sax yu góorgóorlul nga ñëw golul nga ñëw jóge sa kër yek bi ngay yek fi même pas 30 minutes nga xam fi loo xam ne ñu ngi jéggalu rahmatullah ya بل توسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبهى إن هذا لفي صحف أولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم صدق الله العظيم لكن الله ما شاء الله باسين توري باسين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الساقط إن كل نفس لما عليها قافي فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين صلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم طوي السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات السجع إنه لقول فصل وما هو بالهزم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أهلهم رويدا صدق الله العظيم asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. كذب ثمود بتقواها إذ انباش أشتاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فأكلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها صدق الله العظيم إنك كادر إلى ربك كدرا فملاقيه فأما aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. bismillahi rahmaani rahiim. wassamaa'i wat-taariq. wa maa adraaka mat-taariq. an-najmu as-saahib إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافئ يخرج من بين صرب والترائب إنه على رجه لحاضر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجه والأرض ذات السد إنه لخول فصل وما هو بالنظر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل كافرين أمهلهم ريدا خير من ألف تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الصلاة مكية السلام عليكم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 فالعاصفات عصفا والناصرات نصرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا أزرا أو نزرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لم يكن الكافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سكينة حتى تأتيهم البين رسول من الله يطلع صوفا مدقرة فيها كتب نعيمة صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله أيوة.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 فالموديات خدخا فالمغيرات طبخا فأثرتن به نقوى فوتر أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجم عزاما بل قادرين على أن يسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وعتف القمر الجمع الشمس والقمر السلام عليكم asalaamualeykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu. a'uuzu billaahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير في الشأن تنزل ملائكة وروفيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته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 وهو العزيز الحكيم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi tudd Akadé sama yaay mi ngi tudd Xadija sama papa mi ngi tudd Gada maa ngi leen di tari suuratul Qiyaama الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش كسرت وإذا البخار سكرت وإذا النفوس زوجت ak doomu imam ñu koy wax Racky Diallo ñëw bi ñu taxaw nag ñu ngi ànd ak euh, Amady Dia ak Oumar Tine Cordofan mi ngi nii taxaw dañoo teewal nag umma bi ñoom famille bi yëpp la ñu teewal ndaxte seen i yaay ak seen i mbokk seen i baay seen i doom bàjjen seen i nijaay ñoom ñëpp ak seen i doomi ndey ñu ngi fi teew mais ñoom ñoo oyof jël seen place ñëw taxaw nii di mën a joxe kare bi ci suñu famille bi yëpp nag di ko ak ay coow. Madi moo ko jox imam ne ko gën la sant nañ la Rati moo jox ngay coro jullikaay parfum ay parfum ay parfum ñaar la ne la koy parfum waaw kaamil alquran waaw إليكم لمرسلوا وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مشرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يشأ

ngeen xamne gis nga juma ji juma dekk bi la daara ji daara dekk bi la Omar Diallo momuko ko Demba Fall momuko ko momuko ko ñun ñepp dañ fi jaar gis nga su ëllëgee ni nga xamne ñoo fi jaaroon anam imam Abdoulaye mbay ah bimu fu jógee ndax domam mo doon juma ji Serigne Touré noonu ndax seen doom moo doon daara ji ak jumaa ji déedéet man itam su ma fi jógee keneen moo fii ne ñooñu suñ fi jógee ñeneen ñoo fii ne kon ku ko féetalee waa daara ja waa daara ji kon boobu danga nga le xew boobu danga nga le xew daara ji ñu ñëpp ko moom al na ko yàlla yàggal benen bi li may wax rek fexé len dal fexé len muy man muy yéen fexé len xale yi ñu continuer ci seen jang ba ëllëgé bëgg naa ku ci dem ñu inviter la télé wala fenen ni ngay tojé tuba bi non ngay tojé alcorane ak ak arab parce que lu mëna am la so démé tay ndar ndar ku fa joggé suy waxtaan ci conférence wala lu mënd doon da ngay gis ni muy waxé alcorane non la li waxé tuba bi kon suko defé lolou mën na fi né ko xassa ba jang ba yépp yesu yasin rek li ci dess yépp yité la sans exception sans exception ñepp la gërëm ñepp la sant ma ngi sant wa dëkk bi yépp ñu baal ma ak ñu baal ma ak man baal na leen képp ko xamné defoon nga ma wala waxoon nga ma man baal na la ma ngi ñaan ngeen baal ma assalamu alaykum wa rahmatullah subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm waa dëkk bi di gërëm suñuy wayjur di sant yàlla bu baax a baax a baax li may fi may dale rek damay wax imaam yow lay tàmbaleel dëkk bi mooy sunu al mooy sunu école mais am na ñoo bokkalul classe bëccëgu tey bile waroon na lu la naqari yëpp mu neex la yow bii mooy sa fayu bii mooy sa fayu dafa am benn mag mu baax boo xam ne dama son dajeek moom fële hôtel de ville Dakar mi ngi sant Ngom dama xamatul tur bi quoi ma ko bawal bawal la ñuy waxtaan mu may nettali benn bés ci benn ziyaar boo xam ne dañ doon ziyaar ji sëriñ Fàllu nee na ñu rang ni le xam nga nit dañuy xër ci sëriñ bi kooku di rañ di rañ di rañ ba li des ak moom sëriñ bi bari bari ne bareetul xam naa rañ bi am clé rek paa bi doon defar rang bi wëlbatu dóor waa tamit mel ni ku moom itam wëlbatu ko rek dóor paa bi dóor paa bi paa bi daanu sëñ Fallu ne ko dóor fay waaye dóor fayu bañ ku ñu dóor moo tax ñu ànd ak sëñ Bamba bon yow imam lii mooy sa fayu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 ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك